li waral ma laaj pour def motion présidentielle comme ni ma ko suñu règlement intérieur maye article 75 mooy dama gis ne ci biir budget bi am na loo xam ne dañ ko ci nar a muy budget boo xamante ni gis nañu ne mu jaarul yoon muy CREI ndax dañu gis ne CREI ci boppam monsieur le ministre ci wàll yoon tribunal la boo xam tribunal politique la su ma ko waxee xel yépp war na dem ci li jàlloon ndax tribunal la boo xam ne ki doon toppee tey ñépp gis nañ ne du woon tribunalu yoon mais tribunalu politique la woon ndax ki doon toppee nekkoon procureur moo nekkoon procureur substitut di procureur ñu xëy en pleine audience ñu dàq procureur bi jël substitut bi def ko procureur avocat yi bind wane ni kii amul grade bi président wàccewaat ko yokk garaatam falaat ko mu nekk procureur mu topp Karim Wade ba tëj Karim Wade siis bi bi nga xamante ne tëj na Karim Wade moom ci boppam dafa defaat réquisitoire wane ne dafa bëgg ñu xañ Karim Wade ay droits civils am ak politikam am siis bi gàntal ko kon boobu ñëpp xam nañu ne tribunal politique la yëmu ca ñu def ko à sens judiciaire de l'État mu topp Khalifa Sall bala ci am am ci tey mu nekk tey ministre de l'intérieur loolu dafay wane ne sus maanaam suñu tribunal bi ak suñu justice dañu ko jël di ko politiquer parce que ay nit lañu fa teg yoo xam ne da ngay xam ni ñii ay nitu politique lañ ca yàgg-yàgg ci politique la ñuy mujj ñu gis ne loolu waral na ñu bëgg ñu def assainissement débat bi ndax justice boo xamante ne nii kumba am ndey la kumba amul ndey ndax tey jii nii moom mi nga xam moo nekkoon moo doon rëbbu tey mi ngi toog tey ak ñamu doon rëbbal tey ci conseil des ministres moom mi doon rëbbu tey mu ngi toog mu ngi ñëw tey assemblée di jàkkaarlook ñoo xam ne da leen doon rëbb tey jii ñan doon rëbbu tey juróom-ñetti nit la woon ñaari fonctionnaire ak juróom-benni politicien menum Karim Wade lañ tëj juróom ñi des yëpp tey ñoom ñëpp presque ña nga ca wetu président Macky kon ana boobu justice CREI lan lay jariñ ban njariñ la am benn nit a ko taxoon a jug muy Karim Wade ñu tëj ko ci doole tëj ko ci lu dul dëgg bi nga xam yàlla dogal na ñu tëj ko bépp koo xamante ne da ngay xeex ak ak yelef ci àdduna bi muy kuréel yi nga xam ñooy kuréelu droit de l'homme yépp wane ne tëj bi jaarul yoon ba sedda yaawu ñëpp Sénégal doxal ci kawam doole mu doon loo xamante ne politique la moo tax ñuy demande ñu def assournement débat bi parce que xam nañ ne ministre de la justice ci biir ministère de la justice dafa am ñoo xam dañ leen di utiliser pour politique loolu moo waral ñu bëgg ñu def assournement débat bi wasalaam. La procédure prévoit lorsqu'un député intervient au titre de l'article 75 qu'après son intervention, la parole soit donnée au président de la commission compétente. Je donne donc la parole au président Seydou Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ceci n'est pas une motion. Ceci n'est qu'une... intervention qui est fondée sur des convictions individuelles et personnelles. Au nom de quoi on veut faire une motion parce qu'on a alloué des crédits à une juridiction ou à un service de l'État Au nom de quoi on ne doit pas voter un budget parce que simplement un tribunal a rendu une décision que certains jugent anormale et que tous les jours, dans le tribunal de notre pays, des décisions sont prises, des Sénégalais sont condamnés, Au nom de quoi Karim Ouad a plus de pouvoir dans ce pays que le citoyen lambda qui est condamné par la même justice Et pour cette raison, vous voulez qu'on renvoie l'examen des crédits du ministère de la Justice pour que demain, nos tribunaux ne fonctionnent pas, pour que demain, celui qui commet une infraction ne soit pas jugé. Ceci est irresponsable. Je vous le dis, ceci n'est pas une mission, ce de l'irresponsabilité. La motion préjudicielle n'est pas une sucette aux mains de parlementaires qui viennent nous sortir ce type de commentaires. La justice a tranché, comme elle a tranché sur d'autres procès. Et nous sommes tous des Sénégalais, quelles que soient nos positions. Arrêtons de limiter la justice et son action à l'affaire du jugement d'un politique ou de deux politiques. La justice sénégalaise, elle mérite nos hommages et notre respect. C'est cela aussi la séparation des pouvoirs. C'est un pouvoir qui est indépendant, qui est impartial. Tout comme nous sommes un pouvoir, nous ne pouvons pas, nous, nous asseoir, nous regarder de haut et mépriser cette justice. Car cette proposition que vous faites, c'est le mépris de la justice, c'est le mépris du fonctionnement de la justice, c'est de l'injustice. Respectons les Sénégalais dans ce qu'ils sont. Si vous n'êtes pas d'accord avec le ministère de la Justice, Vous avez votre temps de parole. Dites-le pendant votre temps de parole. Débattons de ces questions. Mais n'utilisons pas les dispositions du règlement intérieur pour nous amuser et pour nous faire perdre du temps. La République, elle mérite plus que ça. Monsieur le ministre de la Justice, Monsieur le Président, la République, elle mérite plus que ça. La République, elle s'adosse sur le principe de la séparation des pouvoirs. L'Assemblée nationale doit respecter la justice. Ne pas respecter la justice, c'est de réduire son engagement et son action de tous les jours à des décisions rendues, quand bien même rendues dans un cadre de conflictualité d'arguments, avec des avocats qui ont défendu, des magistrats qui ont dit le droit, et nous n'avons pas, nous, la possibilité de juger de tout ça, parce que nous n'avons même pas la quintessence de ce dossier. On se limite à ce qu'on nous raconte, à ce qu'on nous dit, au message qu'on nous envoie, pour tirer tout ça sur la justice. Ce n'est pas juste, Monsieur Président. continuons nos travaux parce que la République nous appelle en Monsieur le Président de la Commission. Nous étions dans une dynamique très sérieuse et je pense qu'on doit poursuivre cela et non rester dans une situation politico-policienne. Je suis vraiment désolé, Président, le Président euh, de la Commission Liberté et Démocratie. Comprenez que aujourd'hui, le plus important, c'est de débattre sur des questions sérieuses qui intéressent les Sénégalais et non de nous ramener l'histoire de Karim Wade. Si vous le voulez, attendons d'être sur les plateaux télévisés pour en parler et non à l'hémicycle. Je vous remercie. Les Sénégalais, euh, une mission de redevabilité. Après chaque session parlementaire, je restitue effectivement les travaux de l'Assemblée aux populations. Ce qui m'a valu un satisfait de l'Union africaine depuis Jean Ping, Et on considère que c'est une bonne pratique à, harmoniser, à, à diffuser en Afrique pour la communication extérieure des institutions. Donc c'est extrêmement important. Monsieur le ministre, d'autre part, je dois magnifier votre réactivité. L'année dernière, vous êtes venu en commission. On a parlé des violences faites aux femmes. Avant de venir en plénière, le président de la République vous a instruit pour que, effectivement, vous puissiez élaborer euh, la, la loi. Cette année encore, nous avons lancé le cri du des mères par rapport à cet enfant euh, que son père a fait euh, immigrer. Et hier, on a suivi le procès. Donc, pour toutes ces choses, ñu ngi la ciy remercier mais monsieur le ministre dama la war a jox interrogation bu ay sénégalais interrogé wu par rapport à une question boo xam ne dama ko posé sa collègue de la santé dimanche dernier il s'agit de l'affaire Samba Ndiaye du nom du faux médecin bi ñu bi ñu arrêté woon vers la fin du mois de mars bi ma ko laajee les sénégalais de l'extérieur comme d'ici daf leen intéressé mais ñu doon xaar lan la ma ministre de la santé war a tontu bi ma nee tontu ma sa benn confrère qui est avocat international daf ma ne kooku doo ko laaj ministre de la santé garde des sceaux parce que ministre de la santé pare na ci ba delloo na ko garde des sceaux donc ñu lay laaj ba Euh, qu'est-ce que Samba Ndiaye est devenu est-ce qu'il est toujours prisonnier est-ce que dañuy organiser procès lan la ñuy def parce que man xaw naa qualifier tuuti fee te aw ma ci woon droit parce que nee naa il la base des cas communautaires ndax dégguma cas communautaire feneen fu dul Sénégal surtout que avant ñu koy arrêté dégguma ko woon mais aw ma droit ci qualifier fee mais bëggoon nañu am ay information ci loolu. monsieur le ministre ma doon la wax ci maison de justice bu fekkee ni foofu la ñuy defee médiation yi. dama bëggoon ñu accorder ko importance et puis ñu privilégier ko parce que mandat de dépôt yu gaaw yi vraiment dañ ciy désolé wu. am na benn waay boo xam ne xëy na c'était pour rire mais def ni magistrat yi ni ñuy gaaw a prononcé wu mandat de dépôt waroon nañoo mos tuuti kaso bi xëy na il est allé trop mais nag quand même euh, privation de liberté bokkul ak kaso kaso beneen affaire la ba pare dafa am benn sens ci suñu àddina surtout sénégalais sénégalais dafa dafa am kersa ci kaso. kaso dafay transformer nit kaso boo fa génnee dootoo dootoo mel ni ki nga xam ne moo fa duggoon donc am na loo xam ne et le plus souvent d'ailleurs longue détention préventive yi war na war nga ñu wax ba xam dédommagement yi fu ñu toll parce que une longue détention préventive ki aboutit à un non-lieu véritablement waxoon ngeen ni dinañ leen dédommager mais apparemment euh, dédommagement yi dafay indi problème te longue détention préventive yi mooy surpeuplé euh, prison yi te prison yi itam la vie carcérale dëgg la Euh, neexul dëgg la kii def ba ñu dugal ko kaso duñ ko may benn kii mais nag euh, dans le cadre de la défense des droits humains nit nit rek la te yaakaar naa ne ku taxaw tribunal bañ ni condamné nañ la yaakaar naa ne c'est une première sanction li ci des nag di ko muy vivre des conditions difficiles de carcération dafay dafay metti encore une fois ñu di la gërëm ci disposition yi nga jël pour euh, le tribunal de première instance de Bambey mais aussi élargissement mag bi effectivement ñu ngi rendre compte te euh, autorités locales yi nga xam ne ñoo fa nekk dinañ la ci accompagner parce que ñoom itam bi ñu leen joxee information bi am nañ ci beaucoup de satisfaction c'est le président je vous remercie ñu ngi leen di gërëm di leen sant